sinigaal daal dinay am juróom benneelu raayam fii ci Afrique ci wàllum beach soccer maanaam footballu tefes gannaaw ba mu daanee Mozambique ñeent ci bal ci benn ci jongante bi wees guney ngaala si laay woy di gën a dëgëral seen taxawaay ci kanamu Afrique ñaari yoon quart de finaliste atum 2007 ak atum 2011 équipe nationale bu beach soccer di waajal juróom-benneelu participation wam ca coupe du monde waaye jamono ji ñoo ngi féete seen juróom-benneelu raaya gannaaw yañu amoon atum 2008 2011 2013 2016 ak 2019 beneen raaya moo di bu Edouard Mendy ak Chelsea mi nekk ca boppu Europe gannaaw ba ñu daanee benn bal ci dara Manchester City mu tax nag moom góolu gaynde yi doon ñaareelu joueuru Sénégal bu joué ci bile compétition te yiit daal di koy gagné gannaaw ba ko Sadio Mané amalee ak Liverpool atum 2018 2019 ci fàttali nag Salif Diao it gagné woon na bile compétition atum 2005 waaye joué wul woon ci jongante boobee.